intense de télévision comme nous nu koy à altine euh, jàpp alxames 10h30 jàpp 12h30 et toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard pareillement indépendamment de notre volonté donc nous am bêté à bànneex plaisir à contentement bu ko fait ñu àddooti fi nga xam que miin ngeen duñu seetaan tànn pour euh, boo xam ni que tànn bi gën la ñu ngi nous di gërëm bu baax ci fidélité gi ak gi nga que am ça sonne nous nous année à euh, euh, TV la première chaîne de télévision comme toujours comme à l'accoutumée je suis avec Hassan, avec euh, nga Maguette en laissant la ñu leen wax ni tamit grande instance député coalition pure. Euh, ñoom euh, tey lañu war a dañ leen war a fixer sur leur sort tey lañu war a jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy attekat bi sur l' affaire Ami Ndiaye ñibi Ami Ndiaye ñibi moom i tamit fàttali leen ne génn na fi nga xam ne que moom mooy l'hôpital mhm. waaye dañu ko wax mu toog toog boo xam ne du am benn yëngu-yëngu sinon mën na ci jëlee ñàkk li nga xam ne moom mooy euh, lu mu am ci biiram donc Tivaouane nag ñoom ñu ngi sàkku ñu bàyyi bàyyi koo xam ne du am app ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ñaari député yi di Mamadou Samb ak Massata donc tamit Touba bu ñu fa amee gët may fa li nga xam ne moom mooy xew ci langue politique yi ñi nga xam ne ñoo bokkee ci LDR yeesal bi nga xam ne que Modou Diagne Fada moom moo ko jiite ñoom nag euh, Cour des comptes wax nañu ci lañ ci sàkku mooy nañu bàyyi yoon yoon daal di def liggéeyam bu ko defee tamit euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo laale ci mbir mu fond force Covid 19 yoon daal di euh, tege seen kaw coalition Benno Bokk Yaakaar troisième mandat. Euh, umpale wu leen ne stade Lamine Gueye doonoon na sel yoonu waaye politique yi nga xam ne ñu ngi faree ci coalition Benno Bokk Yaakaar Pape Mademba bi tey woote woon meeting sargal son excellence le président Macky Sall troisième mandat doonatul lu lam-lame euh, Pape Demba bi tey nee na Macky Sall Macky abadan donc ñu nag Macky ba 2024 bokk na ci jëwriñ yu bare bare yoo xam ne teewoon nañ fa Abdoulaye Daouda Diallo on se rappelle ministre des finances et du budget Matar Ba ministre des ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci làngu politique yi faree ci douane bu Kaolack après loolu stade Lamine Gora Gueye ab jëye nag moom mooy xew benn hôtel de la place boo xam ne ni que coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ña nga fa woon niki démb ci waxtu wi laloon sababam boobu leen daje dañu doon daje ngir jaay carte coalition Benno Bokk Yaakaar jeunesse bi nga xam ne ñoo faree ci COJER ne duñ ca dal ndaxte bu ñu ko bàyyee li nga xam ne moom mooy carte yi yenn ci leader politique yi leader politique yi dañ koy jënd ci xaalis ba noppi duñ ko jox. ñi nga xam ne mooy population bi donc naxee mbay lay ñuru ci président de la république loolu nag ba mu amee jeunesse bi faree ci COJER ne duñ ci dal yeneen ci jeunesse yi bokkee ci Modou Ndiaye Rahma ne nu euh, amal li nga xam ne moom mooy ndaje bi ci teewaayu ki nga xam ne moom mooy groupe parlementaire bu euh, Benno Bokk Yaakaar donc démb euh, jàppante yu métti durée yi moom moo amoon ci boobu lekk ndaje <laughs> cey waa Benno Bokk Yaakaar démb ay seize a doon Medina Baye construction marché bi nee nañ sept cent ah sept milliards sept cent millions ci suñuy koppar loolu nag ëlëm na bu baax commerçant yi te ca njëlbeen dañu leewoon ñaari milliards la ñuy def ci marché bi léegi nag ñu dem ba ci digg bi ñu ne sept milliards sept cent millions la def ci marché bi commerçant yi ne loolu mënuñu ko xalaat marché Medina Baye dégg nga màgget voilà marché Medina Baye te nag. durée de construction 8 mois. Nous avons 8 ans. 10 ans, 10 ans. merci beaucoup. Nous avons 10 ans. 10 ans. 10 ans. Et 8 mois, nous avons dit que nous avons marché pour Médina Installation comité d'action. Nous avons marché pour Médina Bay. Nous avons central. Installation comité d'action. Le nous avons un marché central. Nous avons fait marché. Et nous avons un marché. Nous avons fait marché. délégué délégué principal gars yi nag ba ñu génnee def seen point de presse ñoom waa na taxaw marché nee nañ Serigne Mboup ñun bëgguñu comité section délégué principal la ñu bëgg Serigne Mboup nee na fal force fala force dooley bam comité section dina am falay jaar nuyu asal euh, maa ngi lay fay Babacar euh, naka loolu <laughs> kenn mënu ko yéeme na yéeme na noonu laay def sax daal di nuyu ñi nga xam ni bokk nañu plateau bi sunu euh, rasta women bu taaru bi ak euh, taalibi Serigne Salo bi ni noonu it laay jaar daal di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan actuellement Kaolack TV Babacar ñu ngi lay nuyu. li nga ah, xamante bi neex na si euh, je dirais parce que démb kontaan naa pour dire ah, vrai. Argentine mukk yi mu mukk gaañ. <laughs> démb moom démb moom dama kontaan vraiment. démb mais mais baax na daal. mais noir yi bari nañ ci France. dinañ ci ñëw léegi eh, ak Fesal. <laughs> boo jëlee ñaari blanc lañu am ci équipe yëpp. dégg déggoon ni leen gars yi di wooye Union africaine ay c'est Union africaine. waaw c'est Union africaine kay en téléchargement. su <laughs> kay très classique très charmant très jovial très calme très légendaire. merci beaucoup très chic très glacial. oh c' est beau ça. tooñ moom sa yëf la quoi mais dama lay baal. tey ni a am na nag ku la doon jéem a tendance de bu mel nañ ko gaaruwaale. <laughs> si jikko la doo changé. <laughs> sama xel may saay-saay. <laughs> bàkk bi jib na asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi amati nañ mbégte contentement janoog yéen fii si seen émission match ci Kaolack TV. nuyu sama naataango yaa ngi macha allah max crazy hmm. mooy loolu yaa ngi belli ah <laughs> di nuyu sama góor naan amati naa mbégte dal contentement j'espère que namoon ngeen ma trop. mais ah maa leen raw lu bare bari ci kanam tuuti ñu yaata. merci beaucoup noonu la jaar léegi daal di nuyu ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou bi Maguette ñu ngi lay nuyu. sekk ma ca rek waaw. Ah, jërëjëf. voilà Babacar ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar.

nan lan lan moo tax ñu war a jëmbat garab ak bu ñu jëmbatee garab nan lan ko war a aaree association yi liggéey fii mm-hmm. naka la ñuy def ba kenn ku ci ne mën a sóobu sa loxo ci développement réew mi dañ ci waxtaan léegi ak Samba Ba euh, ñu dem ak bërëbu tasukaayu xabaar yi la ñu xëy fasal si seen xëtu bu njëkk ak ci commenté bi ñu ngi ci ànd ak le grand journaliste Alhassane aywa ñu tàmbalee ko fan. dañ koy tàmbalee ak Libération comme ni ñu tàmmee rek di leen ko defal ñu daal di ko tàmbalee ak Libération. libération xey fësal ap tong-tong bu am fële ca ministère de la femme euh, ñi ëppoon ci askan wi sax jàppoon ni Cour des comptes li mu won jeexna wayé na euh, tong-tong bi dal melni tulli ak màlle fële ci euh, ministère de la femme ñoom sax weddiwuñ lu ni mel waaye daaj bi jàpp na ni lépp loo xam ni luubal nañ ko ci alal euh, defuñ ko ci fenn fudul nu ñu def ba daal di xëcc ñi nga xam ni ñooy ndaw ñi nekk ci euh, mbedd mi ngir ñu bañ a am corona ak lu ni mel leneen ak leneen muy ay alal yu bari yoo xam ni euh, waa ministère de la femme daal di nañu ko luubal li ci ëpp sax mooy tur yi nga xam ni day dellu si di dellu siwaat mu mel ni da ngay inscrire benn nit daal di ko bindaat ñett ñaar ba ba ba juróomi yoon loolu yëpp jëm ci benn benn benn nit kese mu mel ni lu ni mel sax ak luubal la jëm ci waa ministère bi yor wàllum euh, jigéen ñi ak ak lu ni mel gannaaw loolu dañuy daal di jàll ci euh, sunu journal Tribune ñoom ñoo ñooñee sax ci kàddu ñu xëy di fësal ni képp koo xam ni laale nga ak rapport bi nga xam ni Cour des comptes daal dina ko génnee di nga daal di fay loolu ba mu jeex tàkk tàkk tàkk mbaa sax boo fayut lu ni mel da da des nañu la yóbbu fële ñuy denc waaye euh, jëfkatu ñaawteef yi Pape ah, bu LD euh, debout moom moomee sax mel ni kuy dëggal bi les kàddu di fësal ni li nga xam ni waa Cour des comptes daal di nañu ko génnee muy luubal ak euh, ñaawteef yi nga xam ni ñii fi nekkoon ci jamono jamonoy corona bi ñu ngi ko def moom mu ngi mel ni ku ko jàppee loo xam ni meurtre la ak rey la corona leader mu ngi noonu moom moom jàpp na ni corona dealer dealer ah, mu ngi noonu jàpp na ni li nga xamni def nañ ko ap day mel ni ku ray nit rek até bi moy ñu jël denc la prison muy ñaan aussi bu baaxa baax ñu top bi le action ba mu jeex tak 24 heures yéenekaay yi di euh, tamit euh, ci euh, confiance bi nga xamni gaay le journal 24 heures comme niñ ko tamé rek momit mo moo ci ci relation bi nga xamni voilà mu ngi euh, en complicité avec la régie le euh, journal 24 h le ci confiance bi nga xamni à mon yi nañ ko le ko mu mel ni loolee dafa yàkkeeku muy yaakaar bi nga xam ni gars yi nañ ko waral ñu doon def ay partenariat côté finance ak feneen ak feneen jamono ji ñu toll gannaaw ba rapport cour des comptes bi génnee ñii nii doon ñu financé amatuñu benn benn benn confiance jëmale ko ci réewup Sénégal waral ñaaw njort jëm ci lu ni mel ñu di tëye seen loxo jëmale ko ci finance yi nga ñu ko doon def grand place moom tamit daal di dikk ci dage bi nga xam ni moom moo nekk ci ministère dage bi fi nekkoon ci ministère bi yor communication ak culture moom tamit turbine turbine la turbine moom moo andi lu mel qui est coupable. 24 heures grand place. 24 heures grand place. le ministre et le DAGE qui est coupable. Je suis ab di diganté ministre bi ak euh, daaj parce que gis nañ ni li ëpp ci euh, information yi suy génn daaj lañuy la taxal ab euh, laaj daal di sampu diganté daaj ak ñi di ministre kan mo def yi les luubal bu ñu sukkandiko ci kàddu Mamadou Lamine Thiam day melni ab tontu dafa dal di sampu moom moomee di wa PDS lépp loo xam ni daaj bi def na ko mu ngi ko def ci euh, ndigalu ministre bi ndaxte daaj amul euh, benn fit ngir taxaw temb jàkkaarloo ak askan wi di def loo xam ni jëmul kër mbala loo xam ne ak sàcc la mbala ak luubal mu mel ni bi laaj sax. moom quatre moom jël na. waaye lim jël moom euh, da ko da da da ko def ci chèque. voilà léegi chèque boobu noonu.

Léo allez tamit euh, ci tribune mom tamit Zale mi moom tamit ci walu ministre de la culture ak communication euh, mom mo wax li ni mel moy euh, chèque yi nga xamné guéné nañ ko muy preuve yi nga xamné ni ko amal Abbas Fall néna assemblée nationale dinañ yobu li nga xamné moy mooy luubal yeeg lépp loo def nañ ko té jëmul kër fi ci diwanu Sénégal ngir ñu mëna voter loi yi nga xamné dina mëna permettre ñu topp li nga xamné wa Cour des comptes guéné nañ ko ñu teg ay daan jëmale ko ci. ñi nga xam ni ñoo def yile yile ñaawteef uh, naka noonu sax waa uh, enquête ñu ngi daal di jug ak waa société civile. Ah mu ngi ngoog enquête mu ngi noonu seen bëgg-bëgg mooy na mbir mi leer ñu topp ko information judiciaire ñu topp ko ba mu sës rëkk ah, xam naa nag dañ koy daal di tëjee ak mbégte mi ak contentement bi muy stade ñu ñu ñu tëjee ko ak uh, stade ñoom ñooñee sax démb la ñu daal di football finalu coupe du monde Euh, mbégte lañ ci ànd ak contentement. Babacar 2022 euh, Babacar démb nan nga nan nga dundee final bi. ah Messi enfin touche au grand au Graal mais Babacar naka nga dundee final bi démb. waaw bon ça a été un mbégte. Mhm. moom ni ma yàggoon wax rek maa ngi doogay maa ngi doogay fàtt euh, faral benn équipe bu gañ. Mhm. ba coupe du monde bi commencé ba léegi. mu ngi mu ngi xanaa peut être Sénégal. jour ma ko njëkkee faral nañ ko gañe. Mm. faralaat ko mu gañe faralaat ko mu gañe. faralaat ko mu gagné ko. yee démb faral Argentine su su suma su ma ma ñu suñ teeloon déggoo kon am naa am suñ teeloon doo faral Argentine comme que yow koo faral ñu gagné ko heureusement kon kay yaa tax match bi métti. ah mu ngi doon kon. moom mën nañoo match bi dem ba ci kanam ma man xamatuma ci. mën nañoo jàpp ni euh, final bi nga xam ni Messi jël na ko. Ah! jël ba koo xam saa yoo dugalee waaye. Mbappé mel ni kaay leen seetaan waa Mbappé mel ni fett bu nu sànni. mu ngi noonu final bi nga xam ni euh, waa Argentine jël nañ ko démb ànd ko ak Messi mel na ni équipe bi yëpp dañoo bootu woon ci ginnaaw kii di Lionel Messi euh, nit ñi di ko wooyee sax góol maanaam euh, meilleur joueur au monde. ah oui loolu lekk nekk. il paraît que Mbappé moo jël meilleur buteur. waa Mbappé moo jël meilleur buteur ñenn ci askan wi sax daal di jàpp ni dañ ko ko jox noonu ngir lee ko ko waaye liggéey la boo xam ni def na ko mu nekk lu am sa ko mérite la dafa triplé démb trois buts la dugal la buñ ci génnee série bu mujj bi parce que série bi du bokk ci nombre de bi yi nga xam ne dañ koy compter ah, euh, ah. waaw saa yi ni huit huit bi la la la la nekkee meilleur meilleur buteur euh, moo ëppale Léo Messi benn bi uh-huh. mooy triplé bi mu def dem moo ko permettre loolu ñu fàttali rek ni Argentine bi mooy troisième fois muy euh, jël lii di coupe bu njëkk mu ngi ko jël 67 euh, bi mu ko jëlee 60 euh, si je me trompe pas bi mooy troisième étoile bu njëkk bi. mu France aussi dem troisième étoile la daan wut. la doon voilà ku nekk di wut troisième étoile am far yàlla def. Messi ñu ñu ñu aussi que ni euh, Lionel Lionel Messi mu ngi ci actuellement ci 45 ans.

bu yéen bu lim da nga fi yàgg. jël na lépp émission bi damay ragal kon du du du du jeex. boo ko bëggee boo ko bëggee bii moo ko manqué woon quand même. waaw te jël na ko dem dem ak France. nit ñu bëri ñenn ñi nga xam seen xel yeggul fenn fii sama genre ñu ngi jàppoon ni c'était juste pour concurrencer kii di eh, Diego Maradona. Ah waaye Messi gannaaw bu mu jëlee loolu dafa. Messi eh, a tout gagné yëkkati ay kàddu am solo mu ne li nga xam ni coupe bi. yàkkamti na lool dellu Argentine ngir féete ko ak. Oh. ak askanam naka noonu mu jël. Ah, coupe bi daal di ko daal di ko dëjjee maanaam. Euh, féetale ko kii di Diego Maradona nga gis respect bi ak euh, ni ñu xamee euh, waa ni mu admiré kii di hmm. Diego Maradona donte ñenn ñi sax ñu ngi leen di jéem a tëkkale mais Sénégal aussi war nañoo xolaat suñu bopp Maradona bi muy kii Argentine premier match am bu mu premier final am bu mu finalu mu ngi ko finalu ak Pays-Bas. Oh, c'est en 76. ci biir Argentine. ok 60 78 86 mooy seen deuxième finale bi léegi boo xoolee su euh, deuxième finale aussi euh, mu ngi ko finaalu mu jël ko c'était avec Diego Maradona boo xoolee moom moo yoroon coupe bi yëkkati ko deux mille vingt 2022 bi moom moo nekk mais dafa am lu am solo bi chaque fois waaw li ci gën a boo boo xoolee seetlu bi mais mais li ci li ci li ma ci gën a seetlu mooy euh, Messi. ci match bi ñu joué boko ko le gardien mom paré woon na pour joxé ci ay kàddoom bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom paré woon na ngir joxé bacanam, ngir permettre à Messi mu mën am bile sacre. oh euh, bu weesoo ko non oh, c'est c'est Martinez. waaw mom moy gardien qui bi. Euh, Argentine Argentine mu ngi ko mo jël meilleur gardien mo jël meilleur gardien hein. déjà mom néna na. bi ñuy benn titre bi ñuy dem bi ñuy dem ci coupe du monde bi. dafa amone ben psychologue bo xamné mom lay waxtaanal. mom il était prêt. moom dafa pare woon temb ngir nekk meilleur gardien ànd ak Messi jëli coupe bi déjà dafa am psychologue boo xam ne dina ko permettre à chaque fois bu nit ñi waxee lu lu lu lu négatif jëmale ko ci moom wala leneen moom lay waxtaanal parce que psychologiquement moom pare woon na pour jël lu ni mel. nga gis dévouement bi engagement bi nga xam ne moom la équipe bi am jëmale ko ci benn nit képp muy Messi Messi moomu engagé équipe bi yëpp endossé ko jëmale ko ci benn sacre muy lan coupe du monde. très bien merci ci acte commenté bi à tout moment mom lañ ci andal mais aline bayner Nder woyoon na fi environnement donc bala nuy waxtaanee li nga xam moy environnement aline bayner lañuy la ñuy teewlu mu jox ñu contexte bi nga xam bindon na woy woowu jëmale ci li nga xam mom moy environnement on va parler ensuite de de la gingembre c'est bien ça gingembre mom moy euh, li nga xam moy ginger ginger euh, jinjeer ay xar baxam ak jën ginger jinjeer yi mu am màgget mo ñu defal ko subi lan nga nu wax ci

acca bu ñu waxee jinjeer xel yi day dem ci xale yu góor yi kese ñoom ñoo war a naan jinjeer non non jinjeer dafa nekk loo xamante ne tey jii boo demee ba sa yaram nga am loo xamante ne da nga ko ciy sentir di nga mën a jël li nga xamante ne moom mooy gingembre di jinjeer di nga mën di jël li nga xamante ne nag mooy vingt cinq grammes de jinjeer ak euh, lem nga boolante ko ak ak euh, kii nii vingt cinq grammes de de jinjeer mm-hmm. ak ak lem boo ko boolee def ko ci kaas. di ko naan di miel miel oui. di ko boolee di matin et du di ko naan dafa baax ak ñi nga xamante ne tamit bu ñu lekkee du rees. Mm-hmm. bu ñu lekkee du rees mën nañ di faral di naan li nga xamante ne moom mooy jinjeer boo ko naanee day reesal sa lekk bi. Mm-hmm. bu fekkee tamit da nga dem bay tëdd nga naan jinjeer boo xëyee da ngay xiif pour mun a pour mun a lekkaat mm-hmm. ñi nga xamante ne tamit dañoo yor li nga xamante ne mooy émori hémorroïde hémorroïde jinjeer da koy faj boo jëlee vingt cinq grammes de euh, poudre gingembre mhm. ak ak euh, de xabatu sawda nga boole ko ak lem di ko naan ak laaj di matin et du soir demi bi rek ngay def moom baax na tamit ci ñi nga xamante ne dañoo yor hémorroïde gingembre daal mu ngi noonu. baax ah. li muy faj daal bëri na. Euh, bu njëkk bi da ngay jël gingembre nga boole ko ak li nga xam ne moom mooy. lem ñu naan ko mhm. lem. nga jaxas ko après di ko naan. di ko demi midi ak soir. demi casse ngay jël maanaam eh, bu fekkee casse bu mag la da nga koy xàcc digg bi maanaam cinquante millilitres. voilà moom ngay jël ko bu ko dina la mën a gunge ngay mën resal reesal maanaam bonne digestion. digestion oui. Nah, yi nga xam dañu am yii voilà yooyu boo ko naanee affaire dina mën di res mu gaaw nga ni loo ci ma yokkoon la ci eh. ne gingembre même ñun sportif yi sax day ci ñun comme li nga wax rek des fois tamit nit dina lekk pour mu am problème mu res, mhm. mais boo ko jëlee automatiquement da ngay gis ne day wàcc sport yi à chaque fois dañ koy jël di utiliser parce que dafa nekk loo xam ni mooy loolu man mi di wax yow saa su ne dama koy jël yàlla bu ma jël ci limon bi def ko bu mu saf saaf su ma demee saa des fois dañuy wax ne xale yu góor yi rek ñoo war di naan jinja mhm. yow da nga ko weddi lu tax nga weddi ko parce que du nit dana day am gees mhm. du góor rek mooy am graisse jigéen tamit day am graisse mën nga jël li nga xamante ne mooy jinjeer nga boole ko ak limon boole ko ak naanaa mhm. boo ba xalandoor ko di ko naan loolu tamit day wàññi graisse bi da koy dindi ba mu set wecc mhm. euh, comme comme comme euh, ni mu ko ni mu ko waxee rek. Euh, bu nay dëgër nay dëgër. mu ngi mu ngi noonu gingembre googu sax nday dëgër gi nga wax amaana dégg nañ ci euh, mag ñi ak tamit sunu ay recherche may nañu ñu xam ni gingembre bokk na ci li li lii tax nday dëgër gi ku bëgg a la waxoon daal ah nga nekk mais aussi gingembre day yokku kattan day yokku kattan kattanu góor moo waral euh, comme ni ñu koy déggee ci euh, publicité yi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi jaay garabu kattan rek dañ ciy boole gingembre ak lu ni mel ah. suñu sukkandikoo ci sëriñ seeg li ñuy wax ci publicité yi ci télé yi et puis am na ci borom ñi jaay jus moom dañuy tooñ parce que dañ lay fekk nga nekk xale bu góor yàlla boo nekk jinjeer jaa ngi nii célibataire bu sonn ñoo la jinjeer jaa ngi mais mais aussi Babacar ana célibataire ak naan jinjeer mais yàqul dara mais jinjeer dafa oh. Babacar mais mais est-ce que xam nga Maguette jinjeer wàllum rhumatisme maanaam tànk yi méttee yi nga xam ne mm-hmm. dafa sonal mag ñi jinjeer daf ciy def lu am solo maanaam daf ci da koy da koy da koy soulager bu baax a baax coono yow mi sport comme ni nga ko waxee léegi pratiquement dafa bëri ci ñi nga xam ne sportif lañu Euh, jinjeer bi tamit daf ci daf ciy liggéey maanaam nausée xel buy teey ak yu ni mel booy jël jinjeer lu bari du la sonal boo ko seetloo ñu koy naan loolu du leen sonal soj rhume jinjeer bi jinjeer bi oh, aussi jinjeer jinjeer aussi mu ngoog ak taaru te am. ko aussi da koy da koy faj euh, des fois bopp buy métti waxuñu nag bopp buy métti ndax tension wala ñàkk na la wala leneen mais bu fekkee day métti nii rek ndax tàngoor bi wala yu ni mel jinjeer bi da koy faj euh, ak tamit. problème digestif wax ngeen ko léegi manam lekk bo xamni même bo amé ulcère mm. di utiliser junjeer comme nga nga nga nga lii bolé ka ak ndox diko utiliser diko ko souvent baxna aussi bu baax a baax mais bu féké sa ulcère bi tamit dafa nek ulcère yi nga xamante dalay danel de trop mun nga ci baña jël li nga xamante ne da lay sonal bu nekkee niveau avancé quoi lu yam la rek voilà mm-hmm. yow xëy suba rek jël moom doomu jinjeer bi tuuti rek di yee nii di sàqami di en plus Babacar jinjeer tamit dafa baax de mag ñi dañuy faral naan del jël jinjeer ci ki nga xamante ne mooy dawal Jakarta di ko def ci taatu velom da lay musal si ay balaa ay comme accident wak yooyu boo fekkee tamit da nga bëgg xaalis comme sama zaar gi ak sa zaar gi dañuy jël jinjeer def ko ci suñu pochette yi. di doxal moom moom la nu mu yónnee ah, kon kon moom la nu mu kon moom ay qualité am ah, euh, yi xam ni moom mooy faj. ak li nga xam ni dafa bokk ci liy aar. non Max yow guddal fan man su ma wàcc donc moom la moom la ma moom la di euh, Dibor yónnee nii nee na ma en dehors de jinjar mhm. ci lu muy faj ak ngëneel yu mu am. Mhm. jinjar dafay ubbi wërsëgu doomu aadama. Mhm. maanaam bu fekkee da ngay euh, doxantu ci mbedd mi wala ngay nekk jaay. ngay jaay euh, marché yooyu da ngay jël jinjar nga def ko ci sa pochette fu mu nekk doo ñàkk xaalis donc man da ko bëggoon denc mais malheureusement comme Maguette wax na ko. des fois yàlla mu mu bindee du ma partagé. pour lan doo partage ah, loolu mooy lan man mii xaw ma jaay xam nga man dama koy naan xaw ma kaw ah, woon. mais damay ragal bu émission bi jàllee kalpe boo fëgg fekk fa jinja ah man nag dama di doomu géwél mhm. ñi ma yar bëri. Mhm. moo tax yu bëri dama koy xam tarkalla. mariage mañ sa a kenn du man. <laughs> mag ak ba ma a bàyyi ci penc parce que dama faral di wax dama dégg benn kilifa ala dem mu wax ni jàmm bu nekkee ci penc ñu xëy fa suba ba ngoon. Mhm. kenn loxoom darul gémmiñam mhm. kenn jógul mbéj kenn ay mhm. kurbeñ jógul mhm. mag fa xam na mu waxul lu mu waxul dëgg la donc mag lu mu bàyyi ci bécc donc mag ñi nañu leen aar ñu leen cër yiir leen gën leen a dooleel te di leen may nopp lu am solo donc en attendant ñuy euh, daral gan gi di Samba Ba président association kay liggéey Kaolack point focal réseau des éco-citoyens du Sénégal moom mooy suñu gan moom moo leen toogal ci ndar bu ndaw Kaolack Alioune Mbaye Nder am na mu woyoon ñu ànd ceeg la régi mais en attendant est-ce que doonu jox euh, ñu ñu dem ci suñu page commerciale. ah Kër Ndaak nanu dem Kër Ndaak ñu xool en attendant gan gi di ñëw ñu xool Kër Ndaak la fa am ak la ñuy jaay ndaxte itam bërëb la koo xam ni que man mii dama fay dem te fa may dem. dama ko bëgg a ak yéen wala leen ko ngeen ngeen ñu mën a xam ne. itam euh, Kër Ndaak bërëb la bu am solo. mais Babacar waa Kër Ndaak mës nañ maa jaay gâteau bu gâteau bu taaru. anniversaire yi naan taaru na taaru na mais ndekete li gâteau bi di taaru taaru la muy safa ko gën. ah oui man yi keroog tamit jox nañ ma lii crème glace. Mhm. crème glace ñëw ko ci télé bi nag naan dem naa Kër Ndaak. waaw ah. ci biir biir bi laa ko wax di. ku la fa yóbbu surtout ça. Kër saa soriwul sama place. Ah. man a ma woon ne sax côté boobu la nekkee soriwul sama place mais gâteau bi da nga koy lekk di ci daj yoo xamante ne tarkaal la ah oui partenaire la bokk na ci ñi nga xam ne dañuy dooleel mhm. ah, ci seen jotaay bii di match show bu ko defee ñu découvrir loo ak yéen kër ndaak ak la fax jox kenn autorisation loolu tam dinañ ñu ci wax dinañ leen dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy artistes yi bu ko defee ak décembre bi ci la ñu mën a di euh, def li nga xam ne moom mooy dundalaat seen poche waaye tam dundal musique bi ñun tam pour ñu jàpp ci force ñu dimbale leen ci comme gars yi léegi jëndatuñuy kaset. njëkk hmm? ay kaset lan daan jënd mais léegi. mais mais kaset yi sax gars yi ñu ngi ci doon dund ay jafe-jafe yu métti muy piratage bi ak yu ni mel. mais léegi mais léegi piratage moderne la parce que dangay gis pas mal de comptes yoo xam ne ay comptes fictifs la dañuy. jékki-jékki mais Papa Diouf jëlul album bi dugal ko ci YouTube mais gars yi dugal nañ ko seen YouTube. actuellement xam nga lan moo dul génn li nga wax sa xel. <laughs> eh des fois gars yi dañuy loqat li sa xel ñu exposé ko. c'est ça le problème qui li ah sa xel kay boo ko waxtaanee <laughs> sàcc rek. jël sa albumu jaamur ne ko dàng sa compte. gars yi ci boppam ñoo doy baar kenn waxu leen dëgg tamit. mais nañ ci jàppale jéem na écouter la Papa Diouf Jeeba génne na mbëggeel bokk ci ak artistes yi nekkee ci sous région bi yëpp kenn ku ne def sa participation donc euh, jombul euh, ci yeneen jotaay dinañu am saa yu ñu amee seen autorisation ak seen aval saa yu ñu ko permettre ñun dinañu den ko dégtal benn par benn bu ko defee ñu def euh, débriefing bi par rapport ak album yi ak lan moo tax artistes yi souvent dañuy taamu mois de décembre. Samba Ba Wally Seck génne na moom def na lancement yi suñu se prépare. ak yeneen yoo xam ni que war nañu ko am ci décembre bi on est 19. ça war nañoo wax ak moom ci mbëggeelam yi de kañ lay deñ waaw ah mais nag euh, bon am na ci daal particularité bu extraordinaire bu mu am. Mm, mm. am na touche bu mu apporté musique am na lu muy wax a chaque fois loo xam ne def réplique wala wala mu nekk loo xam ne ñun dund ko. Mm-hmm. mais Assane est-ce que jar na tamit jéebaa ñuy wax ci moom ci mbëggeel bi muy génne à chaque fois parce que fii boo doxee une deux trois. koo dégg rek mbëggeel lay wax daal. man daal jéem a yàlla dugg ci baax tout est mbëggeelisé maintenant. kon daal dëgg même l'environnement sa mbëggeel. mu ngi noonu c'est ça waaw c'est ça aussi. c'est de l'affection aussi quoi. ah c'est de l'affection. merci beaucoup à l'artiste Dieba un artiste patent. et potentiel on peut dire parce que xale la boo xam ni que loxoom set na mën a bokk il a beaucoup de choses dans sa tête à dire euh, donc dina nekk artiste boo xam ni que dina continuer à nous faire plaisir dans le monde euh, du du de la musique Samba ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum di nuyu téléspectateur Kaolack TV di nuyu ñu ma bokkal plateau bi di am mbégte ak contentement ci invitation bi di rafetlu bu baax euh, seen liggéey di nuyu kilifa kër gi. di nuyu aussi kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu aussi euh, bu baax la xalif de la fayda Cheikh Mahi Niass di kontaan ci moom trop parce que depuis ba léegi euh, association bi bu ñu ko seetee da ko rafetlu trop ba pare jënd carte membre adhéré di ñu encouragé aussi di nuyu képp koy seetaan euh, télé bi rawatina fii ci Kaolack ak li ko wër di am contentement trop ci invitation bi. association kay liggéey euh, Kaolack point focal du réseau éco-citoyen du Sénégal. Mm-hmm. nekk ci nangaat Kaolack ñu bàyyi la ak Assane ñu tàmbali waxtaan bi ak euh, Samba nuyu nañ la. Mm-hmm, Assane euh, ça fait un bail nañ gëj a gis effectivement. Samba bala ñoo dugg ci création bi fu mu jugee lu waral nangaan ak lu ni mel lan mooy environnement. waaw comme nuñ koy faral di waxee rek environnement nekk na loo xam ne nii dafa bokk suñuy dund. te bu ñu xool euh, Sénégal euh, développement bu ñu koy wax mun mënuñoo wax euh, mënuñu mënuñoo wax lépp sans pour autant du ñu wax environnement nekk na loo xam ne mooy tout ce qui nous entoure moo xam terre moo xam ndox moo xam lépp loo xam ne ni ci nature la forêt loolu moom mooy environnement ci environnement la bokk. alors ah, environnement moom mooy aalam bopp ak d' accord donc xam nga tey association bu nekk am na identification am na ñoo xam ne yeneen tur lañ ko jox ñun buñ ñëwee toog euh, waxtaan suñu biir yàlla def aussi man mii di wax ak yow nekku dama jug rek dugg ci environnement yàlla dafa def euh, depuis mu amee bac ba léegi samay étude ci environnement la moo tax bu ñëwee fii la région de Kaolack ñu xam ne fii lañ dëkk ñu ne war nañoo mën a toog créer li nga xam ne association buy tudd kaay liggéey Kaolack kaay liggéey Kaolack bi nga wax léegi li ko waral mooy par exemple tay euh, kay liguey Kaolack bu ko waxé rek ñepp ñu ngi ci biir yow ci biir ak mu ci biir yalla def aussi des ba association bi ñu comme wax liguey promouvoir des activités relatives au développement durable di les lépp de ci côté environnement la de ñu tuddé ko mm-hmm. euh, actuellement ñu ngi ci ans ren ci cinquième édition. Mm-hmm. juróomi at ci ren. Mhm. bu ñu ci boolee ren. waay voilà euh, léegi nag euh, association bi ci ñaata membre la toll. Mhm. ak tamit cëslaay li lan bon actuellement nii nekk nañ plus de deux cent cinquante membres li may wax nii nekk nañ deux cent cinquante membre te ci biir loolu tamit ñu ngi liggéey ak yeneen association yoo xam ne ku ci mel ni AJUPEDAF euh, AJUPEDAF ku ci mel ni ADAF ku ci mel ni ADA ku ci mel ni tamit UJDK de Kanda loolu li ko waral mooy dañ ko tënk ci loolu pour mën a xam Kaolack. jafe-jafe Kaolack gi te benn association rek mënut a ëmb li nga xam ne moom mooy Kaolack jot na aussi ñu impliqué ci tout ce qui est tout tous les autres associations yoo xam ne ñu ngi œuvre ci protection environnement bi ànd ak ñun tamit ñu mën a liggéey liggéey boobu noonu. Euh, ñu ñu gis ni association bi euh, bi muy juttu dafa centré wu ci lu ëpp ci ay activité am nekkoon nangaan naka ngeen réussir décentralisation boobu loolu dafa laaj liggéey bu am solo xam nga bi ñu demee ba taxawal association bi dafa am loo xam ne dañ ko def ci étude environnementale dafa am hmm. alors que cellule environnementale de base yooyu moom moo doon jël li nga xam ne mooy en la gestion de environnement de euh, de Kaolack récemment am nañ ay point focal ku ci mel Ndargu Ndaw am nañ fa point focal ku ci Ndangaan aussi am nañ fa point focal abattoir bi ma dëkk aussi am nañ fa point focal euh, face bi aussi am nañ ci point focal point focal yoyu nak lañu and ak ñom di liggéey comme ça bu journée de sensibilisation amé wala journée de nettoyage ñu bolé point focal yoyu yëpp and ci yeneen association yi pour mëna réussir li nga xamné moy suñu activité. def ngeen 5e édition bi lan nga ko mëna tirer ci bilan lu ngeen def lan ngeen def ak lan moo andi. waaw cinquième édition bi lu tax ñu gën ko def mooy dañoo mettre en place euh, comme li mu wax léegi. Euh, li nga xamné mom moy mëna a promouvoir suñu activité euh, ci ici ci Kaolack ba pare li nga xamné mom moy protéger li nga xamné li jëm ci walu alam gi ci biir 5 cinquième édition bi dañ ko défon en place pour mettre en lumière nos réalisations en même temps aussi de euh, de sensibiliser la jeunesse sur l'importance de l'environnement ci biir loolu timit ñu ñu définiroon li nga xamné moy ben ben perspective perspective yi nak avant ma ci ñew dina la wax li nga xamné ne bobak léegi def nañ ko parce que def nañ ben vidéo de projection pour mieux mettre en lumière nos réalisations wan vidéo de projection bi invité tay bo xolé ñu bari ñëwoon euh vidéo de projection bi lu tax ñu defoon ko moy population bi ci boppam lañ bëgg a wan ne euh, nettoyer c'est bien mais ne pas encore ne pas salir c'est encore mieux mm. ci biir lolu ñu defoon vidéo de projection wan leen li nga xamné ne nii réaliser nañ ko au niveau des abattoirs amorce yi nga xamné mu ngi fa woon euh, amone ay ndox te mënuñ ko wona a effage euh, ñoom ñoo ko deble avant ñuy dem rambalé wuñ ko ñu wane foofu des vidéos de projection def culture ci wàllu cosaan ba pare timit waxtaan ak population bi impliqué leen surtout ménage sur la protection de l' environnement mm. moo ko taxoon a jóg euh. ak timit euh, garab yi nga xam ne saxaloon nañ ko abattoir parce que boo xoolee abattoir dañ naan zone de salinisation ah, Kaolack sax laay wax euh, garab dund fa waaw est un peu difficile garab dund fa loolu la ñuy wax mais xam nga mbir boo ci nekkee rek boo ko xamul rek sax mën na indi problème mais yàlla def ñun tey dafa am benn xeetu garab euh, bu ñuy liggéeyee muy le from mu ànd ci aussi le réseau éco citoyen du Sénégal di nuyu au passage le coordonnateur Amath Kama tey bu ñëwee ñu def. garab gi nu mu tudd peltophorum. peltophorum ci wolof mooy xool ci wolof mooy arbre euh, arbre ombragé dafa xaw a jege lu mel ni genre. koko yooyu genre noonu du koko koko mooy cocotier dafa am. waaw cocotier comme genre ci olof moom mënu ma ko ci olof mais ci français laa ko mun la laa ko mun laa ko mun a wax. xale yi léegi dañu tubaabee. mais <laughs> c'est ça quoi continue ne nga ne euh, may ko mu def bilan bi. après ñu ñëw ci voilà ci biir waaw loolu bi ñëwee aussi ren ñu jëmbat euh, li nga xam ne moom mooy garab tuddee ko mooy garab bi mooy tudd peltophorum dama bëgg ñëw tuuti rek ci côté aspect boobu dafa am solo mhm. ñu xam ne dans les zones de salinisation lu ci mel ni abattoir nangaan lu ci mel ni yeneen zones yi garab bu ñu naan peltuforo moo fa mun a sax léegi bi ñu ñëwee aussi vraiment tey li ñu fa def nii ren mu ngi commencé jóg ba gabion yi ñu fa defoon yàlla def na mu ngi commencé dem bu baax a baax a baax pour loolu dama ci euh, à l'émission rek pour wax euh, Kaolack nañu gëm na ne garab mun na fee sax mais tay bu fekkee ne tay da nga jël ben garab bo xamné lu melni banana wala jël ay mango bëgg ko indi ci zone de salinisation lolu dem juste que pour ñu bëggee mu dem dama bëgg ñu ñëm ñëp nañu approché li nga xamné mom moy réseau écosystème du Sénégal ñu expliqué yeen yan garab mom mo fi dox and ak ñom aussi def ko pour Kaolack mëna am garab parce que Kaolack boy xol jafé ju bu mu am pour le moment ni mom moy garab foo tourner do fi gis garab lolu aussi bokku nañ suñu suñu réalisation ci côté euh, forum aussi daf nañ ci fi des forum de de forums de sensibilisation avec des thèmes portants sur la jeunesse euh, active au service du développement local. maanaam ndaw ñi ak seen seen yëngu-yëngu ci fi nga xam ne fa lañ dëkk loolu def nañ ci benn forum waxtaan ci ak ñoom def nañ aussi li nga xam ne mooy l'engagement citoyen la responsabilité citoyenne la mobilisation citoyenne yooyu yëpp def nañ ko juste que pour waxtaan ak li nga xam ne moom mooy askan wi yee tamit li nga xam ne mooy jeunesse bi ci jafe-jafe environnement ba tamit impliqué leen ci biir. résultat yi ngeen ci am ndax doon na résultat yoo xam ne xaaroon ngeen ko. waaw sant yàlla bu baax a baax a baax sant baax a baax parce que xaar nañ ko parce que mbir boo ci nekkee rek pour man waroo ko mën a làmbaat da nga yalla def aussi ñu am ci expérience bu baax a baax timit mo profito ci bi ci occasion bi timit ren aussi bo xolé euh, j'ai formé presque deux associations sur la technique de reboisement manam naka la ñuy jëmbatee garab dama ko def euh, gratuite parce que ku di ki di environnement rek di l'entrepreneuriat social ma def ko ñu def ko euh, comme li nga xamné moy journée de comment dire ça ci côté sensibilisation ba paré jangal li nga xamné moy association yi sur la technique de reboisement en même temps aussi comme je may yow je dispense des cours sur l'éducation environnementale parce que l'éducation environnementale surtout ci côté xalé yi dañ tourner ci la protection de l'environnement, la protection de la nature pour nous xam le que ñom ñoo wara relève parce que l'éducation environnementale nekk na nous xam elle nous engage individuellement et collectivement sur mm. des aspects euh, euh de l'environnement sur les aspects d'autrui sur des aspects de soi-même et aussi de la société xale bi tey bu ko jëlee war ko lan mooy environnement jàngal ko tey moom ëllëg moom mooy jël mu relève bi pour mën a avancer nga xam ne ëllëg dinañ moom dinañ mën a continuer li nga xam ne moom mais nag Babacar ku wax euh, environnement wax Kaolack dina mel ni euh, kuy liggéey liggéey bu nakar yi parce que à Kaolack umpale wu leen nii

waxtaan ak pour ñoom waa UGC ma and ak ñoom ci ce sont des sites d'ordures waxtaan ak pour naka la partenariat ñun ak pour euh, chaque euh, chaque le cinq bu nettoyé ba ñu ñëw di occasion bi di ko bu acte mais pour wax la jafe-jafe mbalit bu ñu par exemple tay buñ bëggé Sénégal avancer buñ bëggé Kaolack développer il faut que ñu ñu ñu tamal askan wi askan bi timit xam la séparation la séparation des déchets selon leur nature gis nga mbalit mi bu fekké dañ ko jaxase ci kër gi avant muy génn ci biti déjà loolu c'est un problème pour triage bi tay bu fekkone kër gu nekk amna deux poubelles wala trois poubelles tout ce qui est plastique tout ce qui est morceau de bois tout ce qui est li nga xam ni tay euh, ñambu toy la dañ ko war di ber avant muy génn kër gi

lakko aussi ça pose problème parce que ku ne xam ne mbalit soo ko taalee bi muy dégager day yàq li nga xamna moy le la couche d'ozone ah, mhm. ak timit euh, ñin ñi koy noytu aussi amna am fièvre yu mën indi lu mel les maladies pulmonaires loolu aussi population bi dañ ci bayu xel bu baax ta Kaolack la plupart moy ñi nga xamna ne euh, wuñ ci mbalit mi dañuy dem ba ci au niveau du bras de mer tour fo mbalit mi bu ngelawaatee mom moy ñëwaat du ci biir askan wi te loolu aussi retard de développement timit jafé jafé jafe la ci euh, li nga xam mom moy alam gi. Mhm. allez ma amoon na benn question boo bëggoon jibal. man nii day jàpp sama sama lay di ko loqati nànk-nànk bëgguma lii bàyyi nga may def waaye. alam bi moom mhm. comme ni ñu koy waxee rek seen tour bi yaakaar naa dafa wuyoo lépp. Mhm. wuyoo na lépp mais est-ce que yéen yéen a ngi dem ci nga xam ne ni nga ne ni li yéen li ngeen tër mën. Mhm. mënoo leen koo def sans jeunesse bi.

ci côté association ci côté sensibilisation dem ci côté li nga xam ne moom la jeunesse ci ménage ñun dañ koy presque ñun chaque un mois danañ journée de sensibilisation dugg ci quartier bi dugg ci quartier yi waxtaan ak nit ñi pour mën leen impliquer nous savons ne aussi ligue bi ce n'est pas à l'état seulement ou la municipalité ou wala UGC mais aussi la jeunesse aussi dañ ci pas de responsabilité pour xam ne nii tey tey kenn ku nekk war na ci mën a def pour environnement bi mën a avancer mais yamul ci parce que nous ngi génn dem ci quartier yi di waxtaan ak jeunesse bi di waxtaan la population pour impliquer les ci mmh. Euh, implication bi yaa ngi wax léegi mais bu ñu bu ci côté aspect Kaolack mm-hmm. est-ce que environnement japp ngeen ni ak liggéey bi ci def étude yi mm-hmm. lu yomb la ngir suuxat ko ci région xam nga kii di environnement du durabilité mm-hmm. parce que boo jàppee ne yow def nga yëpp jàppal ne yaa ngi soog a commencé parce que environnement dafa nekk loo xam ne dafa aléatoire dafa yaatu te dafa dafa laaj temps bu bari voilà dafa laaj temps bu bari mooy durabilité moo tax parfois dañuy boole l'environnement et le développement durable que nous ñoom ñaar ñoo mën aller ensemble ci biir lolou lu tax euh, comme li nga wax ni ça va être un peu difficile tay bu fekkone tay maire bi fi nekk tey euh, dooleel na association yi yi nga xam ne ñu ngi œuvrer ci protection environnement bi mm. par exemple tay ma limay wax rek haute down down out moko gën par exemple commencer ci souf jëm ci kaw mais munoo nekk ci kaw ba pare bëgg a xam lu ci suuf ça va être un peu difficile. Mhm. mais ñi nga xam ne ñu ngi ci terrain bi ñoom ñoo xam la réalité des choses. Mhm. donc ci biir loolu aussi la municipalité doit appuyer les associations œuvrant à la protection de l' environnement. ba pare tamit euh, à chaque fin du mois war nañoo mën a dajale association yi en euh, protection environnement Kaolack ñu def benn forum invité ñep invité ñi nga xamné autorité képp ki nga xamné ne même bo nekkut environnementaliste ñu impliqué la ci biir jéem a xool stratégie parce que Kaolack pour mu avancer il faut il nous faut des stratégies il nous faut des stratégies il nous faut aussi une étude environnementale de base pour mëna xol xool naka la ñu def pour saafara li nga xamné mom moy jafé jafé jafe-jafe Kaolack bi UGC kese mënut mënut gérer Kaolack parce que dafa Kaolack boy xol ça tourne autour de quarante cinq quartiers dafa yaatu kon ci biir loolu tamit association yi aussi am nañ ci part de responsabilité moo aussi mairie bi tamit war na mën a appuyer li nga xam ne moom mooy association yi la preuve mooy bi ñu def nii rek mooy cinquième édition niveau culture environnementale man dama bind programme bi yëpp yobuko maire mais ni maire programme Le programme bi parce que dañu euh, expliquer association bi hmm. c'est-à-dire conscientiser les masses sur les questions liées à l'environnement d'une part. également de sensibiliser la population ou aussi euh, mener aussi des activités citoyennes ba def programme bi 8h-10h, def lii ba ci ngoon gi yëpp mais ba jusqu'à présent te loolu noonu tey mairie bi moo ko waroon a mën a financer. Ah moo ko waroon a mën a appuyer am na ku mu dénk aussi lu jëm ci wàllum environnement. ci programme am. programme bi suqali ak setal bi rek voilà c'est c'est Baye Mbaye. voilà c'est ça moom loo xam ne jëm na ci wàllum environnement mais mairie bi nga ne yëgluwul yónneewul. li gën graw moy ñëwuñ yónneewuñ ba may ba limay may wax ak yow ni tay li ci def yo boy xol jege na presque 700 cent et sept loolu suñu moyen bop ñun ci association bi mo mo koy def pour war ñun aussi toguñ ci xaar autorité yi. Mm-hmm. da autorité mo mo ñu ci wuy ku ci melni le président Arnaud Youssou Bengelloune. parce que bima ma ko waxee. c'est départemental. Mm-hmm. déw mo fa sax dama ko envoyer ki bi rek programme bi rek si ça si le réagir. réagir ak tamit le président euh, Baba Ndiaye. la ñoom ñaar autorités yi kese ñoom ñoo ah, ci voilà c'est ça voilà effectivement moo tax aussi mm-hmm. ñu ko ci gërëm bu baax a baax a baax di ci gërëm aussi le président Ahmed Youssouf Bengelloune parce que tey yaakaar naan autorité yi bi nag ñu ngi bëgg a sikk de non man man jaar non mais Babacar xam nga boo déggee boo déggee programme bi gis acte bi nga xam ne ah. teg nañ ko dafa xaw a contradictoire mm-hmm. parce que mënoo ne euh, suqali mm-hmm. développement suqali setal waaw environnement ngay ñew ci mom nga mom ngay sétal ba paré wa environnement woo la nga nga banque say yoxo lolu dafa xaw kon ñaata garab ngeen ñaata garab ngeen jëmbat actuellement toll nañ ci plus de 50 peltu forum te inshallah rabbi le 15 janvier bi dañu bëgg élargir li nga xam ne moom mooy euh, euh, suñu éducation de base li jëm ci côté sensibilisation parce que dañ ko def quatre volets volet d'information et de sensibilisation volet de reboisement volet de suivi et évaluation ak volet nettoyage le 15 janvier bi daal bëgg nañu indi benn sans peltu forum pour pour quartier bi. jéem a xool pour pour kaw léegi nag léegi nag léegi nag ñu dem benn aspect politique bu ndaw. ak constant bu ñu def. Mhm. au niveau de la région de Kaolack ñi fi naan dépp ñi fi naan jëmbat nañu ay garab bari nañu. Mhm. gis nañ ko coalition Benno Bokk Yaakaar nee nañ def mhm. nañ fi plus de 17000 arbres. bu fekkoon am na Kaolack forêt la. ak yéen li ngeen di jëmbat. jëmbat quatre arbu yu am protection am suivi am évaluation mom moo ko gën xam nga tay jëmbat télé yi tàkk yi ñëw nga jëmbat dem amul suivi amul dara lolu du def li nga xam mom moy résultat te bo ñëwee arrivé au dernier moment war nga mëna def évaluation garab yi mo def ñaata garab mom mo ci dund ak ñaata garab mom mo ci dé garab bi indi est-ce que tamit adopté na ak bi mako indi yooyu yeb dafa laaj technique dafa laaj aussi li nga xam mom moy étude de terrain xol ba xam man déjà damay dem journée de reboisement yo xam dañ may invité mu leer na ma garab J'ai ñi def adopté wul ak ki bi. Ah. Ah, je te jure ak de salinisation. parce que Kaolack yi dem bo am pelte cocotier parfois dina am na jaune yi ñëmé xorom li ci mel eucalyptus moy xoltu. Mm, voilà c'est ça ak timit bi. jaune yi garab yi zone de salinisation mais ça va être un peu difficile pour mu résister.

jël bu dee cocotier aussi dañuy jël trois mètres de sur trois mètres de circonférence juste que yooyu ay études scientifique la pour mën a xam garab yi kat lii moom ko war mun a protéger ak tamit lii suñ ko ci defee euh, dina dina sax te buñ koy jëmbat aussi da li ci mel ni coque d'arachide moom mooy xolti gerte. Mhm. dans les zone de salinisation parce que ça empêche la remontée du sel day téye xorom bi ba du yéeg. Mhm. voilà léegi tey soo ko jiitalee nga jël li nga xam ne moom mooy toche mooy li jéego ko ci gétt yi. Mhm. xar yi wala nag yooyu noonu mais doo ko jël ci tàng tàng bi rek indi ko. da nga koy bàyyi ba mu ba parce que nu mu tàngee noonu dafa am li naan des engrais chimiques. mooy li ñuy woowee fumier quoi fumier yi soo ko ci dugalee rek dafay rey li nga xam ne moom mooy garab bi te yooyu aussi dafa laaj étude dafa laaj tamit xam-xam pour mën ko pour mën ko def. déjà mais Babacar ñoom aussi euh, xam nga ku ne Kaolack. xam ne amuñu géej dëgg la bras de mer la ñu am. ñu seetlu ni euh, sunu bras de mer yi tefes yi dafay tilim trop ngeen amoon benn liggéey bu ngeen ci tàmbali woon commencé woon nettoyer euh, fu ngeen toll ci ci ci loolu. ba tey ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci continuité la loolu xam nga kii di environnement di la continuité. comme ni mu koy waxee rek. Mhm. c'est c'est la. loolu ba tey ñu ngi ci boo xoolee 15 janvier bi moo la wax nii dañoo activités yi fa lañ ko bëgg mu commencé waat parce que def nañ benn pause un mois depuis programme bi ba léegi dañoo taxaw. juste pour faire une feuille de route pour avoir une stratégie pour li l'année 2023 bi ñu accompagné les accompagner ak moom loolu aussi vraiment ci 15 minutes matin, nous la matinée dañu def set sel bu Kaolack ci aussi journée de sensibilisation fait un forum tuddee l'éducation environnementale un outil pour un développement durable Nous avons nekk aussi le réseau écosystème du Sénégal euh, ak tamit li nga notable quartier moom lañ bëgg a def incha léegi nag bu njëkk ba léegi boo xoolee euh, xar kanamu Kaolack ci wàllum jëmbat garab ndax véritablement am lu ci soppeeku. waaw mu ngi am changement mais du du lool parce que parfois na ngay dugg ci benn quartier loo fay gis ci garab du mat diis loo fay peut-être xam naa dañ ci jote wut ci garab yi wala tamit dañoo amut. Euh, technique bi xam-xam bi tamit parce que li may wax rek mooy euh, doomu aadama lépp lu muy yëngu daf ko war a xam. motax euh, tournée de yi inshallah allah ci janvier bi dañoo bëgg def tournée dans les 45 quartiers de Kaolack pour mener des ateliers de formation sur la technique de reboisement ba pare timit ànd ak réseau éco-citoyen du Sénégal pour mener indi garab ci quartier yi pour ñu mëna a jëmbat. très bien man ci set setal boobu sax laay wax. ci de maire yi ngay wax parce que ñun des fois dafa nek endroit yo xam souvent ñun dañ fay dem. Mhm. ñun jeunesse ba di fa toog di fa féexloo. Mhm. mais limay wax à chaque fois Babacar ñakul ñu ñu mhm. parce que am nga fi légui deux yo xamné cité nga len fi mais bari nan mais lan la ñuy xaar pour jug jàppale ñi nga xam ne ñoom lañ war a jàppale comme sa classe gii nii ñun dañ ne environnement yéen yéen a ngi dox ci environnement lii yoon ba ngeen demee mairie pour man dama jàpp ne ba ngeen demee mairie ba ngeen ko déposé lundi warul am deux jours te warul leen a répondre li gën a garaaw mooy li gën a garaaw mooy maire bi maire bi ci boppam boo bindul boo bindul may ma classe mm-hmm. yàllaa

far yàlla def ñoom milieu bu ñu nekk ñoom ñu xam ko parce que li may wax nii abattoir dañ cee mer de nangaan dañ cee mer ñëpp dañ cee mer parce que li li tax mooy ay jeunes bu ñu jugee pour jàppale la ci setal bi dangay ngay war a mën a accompagner su des moyens moo xam lépp lu mënti doon pour Kaolack baax Kaolack mën a avancer léegi nag évaluation bi ak suivi bi loolu association yi mun nañ ko topp mais tey boo deful dara Euh, ci li nga xam ne jëm na ci côté programme tey ñun boo jugee na nangam am nangam duñ la déglu parce que dañu xam ne ñun bu amee programme jàppale wuñu tamit yow loo ñu woo duñ la ci woo duñ la ci wuyu mhm. que aussi vraiment affaire bi moom vice versa la nii la war a mën mu ñu dégg ko léegi bi muy bi muy lim autorité mu mu lim ñaar euh, te ku ne ndàngaan di ngeen ne Modou rax ma lu waral euh, dégg da ngeen demut ci moom wala dafa réagir waaw njaay rax ma demuñ ci mom wax deug fa yalla mais ki nga xam mo ngi ci mo nek ci mom muy euh, Ndeye Abi Fall moom euh, membre la ci association bi mo ngi ci contribuer di ci participer mom vraiment dem nañ ci mom te ñu tamit ñëw na ak doole mais pour wonna la kaolak fonkuñ borom xam-xam à chaque fois. parce que politique lañ koy bëgg di défé te gis nga moment politique moom boo ko amee saay saay mun a wax euh, bee kaw. wallaay moment moment de politique dafa am ak moment de liggéey te ñaar yooyu il faut ñu mën a distinguer la part des choses te Kaolack pour le moment Sénégal sax laay wax d'une manière générale dépassé nañ li nga xam ne mooy temps politique ci période liggéey lañ nekk. yaakaar naa ne tamit foofu autorités yi war nañ ci mën a xool bu baax a baax a baax war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que tey maire yi bëri jaar nañ fi. Euh, le président Serigne Boumi ni ñu am yaakaar ci mom buñ koy buñ koy fal dañu am yaakaar ci mom quoi qu'on puisse dire. Hmm. dañoo am yaakaar ci mom bu baaxa baaxa baax mais tànk yi mu wane ni ak li commencé am nii man vraiment man xamatuma ci dara. dëgg fa hmm. yalla parce que mënuma mun ñoo nekk ci quartier nekk Kaolack di œuvrer ci protection environnement pour Kaolack avancer Kaolack jëm kanam yow yow la maire ñëwoo yónnee ba ba pare timit après bu événement bi jeexoo sax laajoo sax yeen perspective ngeen ngeen. ngeen pour pour pour loolu. kon donc vraiment doyna war trop. léegi nak yow ci sa aspect. ndax peut-être la personne de Samba Ba dérange da ngay yëngu ci walu politique wala yëngoo ci walu politique bo ñu bañ ñak la accompagner. non du question foofu xam nga parce que dama xawu a dëgër touti nak te peut-être les gens pensent que je suis un révolutionnaire alors que tel n'est pas le cas xam nga bo nekké ndaw xam lo bëgg aussi. xam fooy teg sa tànk xam ne man mii war naa mën a liggéeyal fi ma dëkk. ci côté politique mom même même moom muy moom Serigne Mboup ci élection yi passé tay man bi ñu demee ci élection yi ñom dañoo ñëw man dama démissionné en tant que le président de l'association parce que espoir bi amone ci mom ci côté développement ci côté pour ëllëg dina liggéeyal Kaolack ñu engagé wu pour. jàppale pour jappalé ko pour mu mëna jël li nga xamné mom moy la mairie bu ko jëlé Kaolack gis ci bopam parce que bo doon wax ñu ne Kaolack euh, Serigne c'est un bon profil. te man loolu laa gëm sax ba tey mais tey tànk yi mu wane nii tey man gëm naa ne loolu moom amatul parce que tey munoo nekk jeune nekk ci kaw nekk Kaolack di œuvre ci li nga xam ne mooy alam bi après yow nga nekk ci aspect boobu ñoom yi nekk foofu ba pare seetaan di la seetaan nii di la gis di la xool appee wuñ la ba pare bëgg nga ñëw di ànd ak ñoom chaque jour sur le terrain laa moom Samba moom je m'arrête. très bien léegi nag pour ñi nga xam ne bëgg nañu jëmbat garab au niveau de la région de Kaolack boo mhm. leen daan la ñuy def jëmbat garab ak bu ñu euh, bu ñu ko naka la ñuy def mhm. lu waaw bu ñu bëggee jëmbat garab xam nga dafa am benn réseau bu ma bokk mooy mu wax léegi mooy le réseau éco-citoyen du Sénégal dirigé par Amad Kama le coordinateur il est le coordinateur moom moo yor. Amad Kama bu nekk waaw voilà c'est ça mm-hmm. waaw moom moo yor kii bi. voilà bu nekk un très grand environnementaliste. Mm-hmm. ba pare tamit am xam-xam ci mbir mi parce que man ak moom dañuy tourner fu nekk ci Sénégal yamuñ kaw rek dañuy tourner fu nekk Sénégal di wax ne képp ku ci pare am gabion parce que garab pour nga. pour nga indil ko nit il faut mu am gabion de protection ba pare maanaam association yi nañuy nañuy génne li ñu am defar ay gabion de protection pour garab léegi bu ñu amee gabion de protection ba pare. am li nga xam ne mooy coque d'arachide mooy xolti gerte bi. gabion de protection mooy. Euh, nga xam ni moom mooy wër garab yi moom mooy ñàkk moom moo koy ñàkk mooy li koy ñàkk ba béy du fa dugg wala dara du fa dugg. voilà mm-hmm. bu ñu paree foofu tamit ñu ut li nga xam ne moom mooy suuf li ci mel ni suuf bu lewet bi comme li ñu koy waxee suuf mbirkilaan bi ak tamit lépp lu ci dem moom tamit li jëm ci wàllu fumier beeg yooyu yëpp ñoo koy indaale incha allah rabbi pour mën a jëmbat. léegi nag ku koy jëmbat te bokkul peut-être benn garab la bëgg a jëmbat ci buntu hmm. koy digal. loolu lu ma koy digal man parfois sax dañ ma koy dañ ma koy ñaan comme euh, bëgg benn garab woo ma ma indil ko garab yoo pare mais man parce que xam naa ne su ma ko joxee du ko def mun na ko jëmbat parce que garab am na noo koy jëmbatee rek mun nga ko rey. bu fekkee yow rayu ko bu yàgg te te te jëmbatagoo ko. ah bon kon garab yëpp daal meluñ comme comme comme. Euh, nebedaay quoi non non rek samp de yoon la. yoon mel comme nebedaay nga xam ne moom mën nga ko rooj sax teg fee. du dee yoon la yoon la xam nga tey boo koy jëmbat soo ko jëmbatee ba pare da nga koy bës pour air bi ba ñu dugg ba pare takkal ko li nga xam ne moom mooy. Euh, tuteur pour ngelaw bi bu ñëwee du ko téye. waaw mooy lu koy lu koy may doole. voilà génne wàlla cuvette pour arrosage bi boo ko arrosé ndox mi du déborder pour génn garab bëggut les pieds dans l'eau maanaam warut am ndox chaque jour. cuvette ak ñoo dégg tubaab ba voilà di taa chaque jour loolu aussi tamit dama ci wax ñi nga xam ne daf nañ garab yi seen buntu kër ñi ci bàyyi xel di di ko arrosé suba ak ngoon. ba pare tamit bu mu di taa comme taa yooyu noonu. Mm, ñi am beneen xalaat nag boo xam ne xalaat bi dafa archaïque. Mm-hmm. maanaam xale du jëmbat garab bu garab doo ci toog. Mm-hmm. yooyu du lay faral di. non man man xam nga. dafa am man. man garab. <laughs> man dafa am dafa am. dafa am dafa am loo xam ne c'est-à-dire doomu aadama bu nekk da ngay gëm yàlla. Mhm. doomu aadama bu nekk sa dund war nga ñaan yàlla gasteen wala mooy forage tabax jàkka wala jëmbat garab même le prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla taal ci barkam te ko doon faral di wax mu ne même bu fekkee ne àdduna mu ngi tukki. te kenn ku nekk am nga possibilité pour jëmbat garab balaa ngay dee na ko def pour wan moom nu mu jële nu mu jëlee woon environnement bi ci comme nu mu ko bëggee woon te tey li nga wax nii te man du muy sax bàyyi xel dama xam ne lépp suñu borom la dépendre rek te tamit mm-hmm. jaamu yàlla boo ciy am rek mm-hmm. moom mooy moom mooy moom mooy lépp parce que nga jëmbat garab nga dox ba naaj bi tàng nga ñëw toog ci mm. toog ci kenn ku ko voilà c'est ça ku ko def ku ko jëmbat am na ci yoon aussi am na ci yiw te tamit loolu tamit ñun loolu lañ ci am mais ci dara mm-hmm. jusqu'à man aw financement mairie aw financement ONG mais lepp mu bëgg réaliser kaw lu fi dama koy def parce que j'ai des amis j'ai des grands environnementalistes aussi samay mbokk yi may jappalé ak timit wa association bi ma bokk ñoom ñooy jël seen fukk seen ñaar fukk seen juroom diko ci def ba affaire bi. léegi nag am na ñu am benen xalaat bo xam dañ né liy yàq alam bi ñun la. Mhm. ñoo koy té euh, à chaque fois duñuy def lo xam daf kay aar. Mhm. loolu da koy dëggal wala dakh nga c'est c'est vrai dama koy dama koy dëggal xam nga tay si on jette n'importe comment si on verse de l'eau dans la rue on ne contribue pas certainement à notre espace vital par exemple yow nga balé sa nga jël mbalit mi ko ci bi hmm. man ma def loolu keneen def loolu day suñu cadre de vie hmm. te cadre de vie na c'est un milieu dans lequel l'individu évolue te milieu bobu ñi nga protéger bañ di bay di wax bi bu comme Rwanda ñom def ñun ko doon def hmm. Sénégal dina avancer développement dina am tey par exemple tey jàppee mbedd mi comme sa kër jàppee mbedd mi comme sa néeg bu ko kenn si ñun defoon yaakaar naa ne développement dina am changement dina am. Mhm. éco-citoyen naka nga ñu ko a expliquer ne Sénégal ak léegi bu ngeen boo demee ci région yi comparé ak ñun fi ñu nekk.

reboisement tamit mun na participer ci li nga xam ne moom mooy changement climat bi. waaw reboisement surtout moom moo nekk meilleure solution pour le changement climatique. Mm-hmm. donc moo tax ñun ci boppam en tant que jeune acteur de développement ñu si participer pour di mën di bàyyi xel ci li nga xam ne moom mooy le changement climatique à tout moment. Mm-hmm. donc parce que saxaar ah. su bari si moom mooy andi ah, dégradation couche d'ozone bi moom mooy def réchauffement climatique. climatique mot a bàyyi xel la. Mhm. ñu ñëwaat tuuti association kay liggéey Kaolack. Mhm. Euh, ndax yéen a ngi liggéey ak waa Dewo. Mhm. j'espère que yaa ngi dégg association. waaw si Dewo ak ban rapport de complémentarité ngeen am. waaw man rapport de complémentarité bi moom mus naa seeti président bi. ki nga xam ne moom mooy Kara maa ngi ko nuyu au passage mais xaw na yàgg. yu yu bees yaa ngi ñëw yu bees yi. waaw continue dañaa am yu bees. waaw <laughs> xaw naa ok mos naa fa dem waxtaan ak moom expliquer ko ci côté environnement mais amutoon suivi mais ki nga xam ne moom mooy Waly euh, maam Waly Seck. damay waxtaan ak moom bu lu baree baree baree bëri ci li nga xam ne moom mooy développement Kaolack te tamit je pense que su ma juumul foofu la bokk tamit hmm. voilà très bien léegi mais tamit ñu ngi seeti yeneen association actuellement nii on travaille avec dix associations. dix waaw léegi association de DEO seen liggéey par rapport ak tonni mbalit. Hmm. ndax léegi moom gis nañ ne xar kanamu Kaolack ci wàllum tonni mbalit mu ngi xaw a changé. Hmm. n'est-ce loolu ñun ñëpp gis. dañ koy mais tonni mbalit bi est-ce que baax na. waaye mbalit mi ñun souvent dañ koy taal. et dañuy dégg environnementaliste yi ne. Mm-hmm. mbalit mi mën nañ ko utiliser à d' autres fins. recyclage maanaam. recyclage bi boo ko déggee mooy xam nga pour ñu yegg si fa dafa am wax naa la ko mooy tey ñun problème bi mooy benn oto la am wala ñaar te mbalit mi dañ koy jaxase te boo ko xasee ba jaxase rek pour nga arrivé ci recyclage bi ça pose problème gis nga même pneu yi yi man soo ma ko joxoon tey mun naa la ko recycler ba nga def ko 16 def comme table à manger nii toog nii teg ko. mooy recyclage déchet plastique bi quoi mais loolu du laaj ko waxee léegi. Oh, léegi sax ñu bëri taalatuñ ko ndax am na benn association boo xamante ne dañ lay laaj kilo mbalit cent franc. waaw même à Dakar bëgguma de publicité. waaw non non non allez a des associations yoo xam ne. ce sont ay ONG la ñoom dañuy faral di. jënd bëgg a xaalis. kon bàyyi <laughs> di jënd mbalit mi di ko mais bu tooy duñ ko laal

tey da koy da nga koy dagg j'ai un ami il s'appelle Béel Cheikh la maa ngi koy nuyu au passage moom moo koy mun na ko dagg waaw su ko daggee ba pare man man maa naan ko daggee ko nii daggee ko nii mais le reste nag man maa koy def doublé ko def ci li nga xam ne moom mooy ay ba très bien ba mu normal ba tey boo ko tegee peinture que du def du am benn du am benn problème mais mais ñu bees yi ñor commande ngay dawal de continuer souvent damay gis comme taxi yi li ngay wax ni tapissé yi damay gis man am naa benn frère bo xam da koy liggéey lépp loo gis rek expérience mais bu teg mooy da nga nan exporter la sax nit bo nekkee ci ben mbir war nga ci mëna am expérience mhm. mais tay buñu ñu bëggee di euh, di mëna recycler li nga xam mom moy mooy mbal mi ba diko transformer diko diko di ci def dara il faut ñu arriver à la la sépar à la séparation des déchets séparation des déchets nak lool état war na ci mëna am engagement bu mag parce que tay il faut mu yok li nga xam la disponibilité des des motos tricycles par exemple tay wala des des des voitures yo xamné ni tay de camions yi mu am chaque 15 jours wala chaque 10 jours chaque quartier ben camion dem fa mais tout ce qui est plastique lay jël. tout ce qui est morceau de bois tout ce qui est chiffon mom lay jël lolou bu wa dina emballage tout yoy qui dina neex recycler mais buñ ko jaxassé rek ça va.

bañ mbali mi di ko jël ci mi mm-hmm. aussi surtout communication bi dafa am solo comme euh, information bi am solo ba parfois mu def sensibilisation. mais ci olof surtout olof wala par des langues jola pour nit ñi mëna comprendre mais bu def amna ño français. Mhm. aussi dans des zones reculées dégguñ timit olof. aussi ça pose problème. mais pour nga ñu dégg ko pour wax rek ñu def ko ah. du yomb. da ngay wax ba duñ ko def na dañuy jël du ko def muy bi ak bi mhm. te kenn mba lekk bi da nga ko war a ber à côté pour jox ko jur gi mhm. mbalit bi nga def ko à côté pour ñi nga xamante ne mën nañ ko utiliser ñu di ko utiliser loolu mooy séparation déchets rek di wax aussi ci occasion bi ñu bàyyi xel muy góor ñu ñu ñëpp ñu bàyyi xel di jël kafe di ko def ci mbuus café bu tàng baaxul dafa am effet bi muy def ñu ci bàyyi ah, ah. waaw loolu baaxul aussi muy góor muy jigéen nga da ko def ci mbuus baaxul dafa am ay ingrédients yu muy wàcc ci biir loolu baaxul aussi même aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci oto yi ndox yi buñ bu euh, kii bouteille yi buñ naanee ba pare bu ñëwee buñ ko naana dafa am yu muy wàcce waale ci biir te boo xoolee boo bàyyee sa oto nga def ci ndox boo ñëwee da ngay gis gune bi day ñàq boo boo selo day ñàq bamtuwaat ko bamtuwaat ko ci li ma dëkk moom ngay wax nii da bamtuwaat ko ci ban côté comme ci butéeyu ndox yi. waaw ko butéeyu ndox yi comme par exemple boo jëndee ndox ba pare soo ko naanee nga tëj sa oto boo ñëwaatee boo ñëwee nga tuur ko moo gën nga naan ko parce que boo xoolee dafay ñàq boo xoolee bidon bi. dafay def un changement. te changement boobu te dafa am ay tooke yi muy yi muy dégager ci biir ndox mi soo ko naanee rek mun na la mun na la lor aussi ak tamit euh, ndox euh, café yi yi ñuy naan di ko def ci kii bi mbuus yi nañ ci bàyyi xel. des fois boo ko bëggee emporter maanaam nga jëlee ko lew. voilà bu ko yóbbu dem ndekkee voilà c'est ça voilà souvent da nga koy def ci benn. Euh, mbuus voilà mbuus baaxul mais foofu environnementaliste yi ak euh, nguur ak Sénégal dañ ci am part de responsabilité. Hmm. dañu waxoon ni li nga xam ne mooy mbuus. Hmm. déchets plastiques yi dañ koy tere. mais léegi gis nañ ne dafa gën a wuleeg ñaay. ak mbuus lan hmm. moo tax mu bon ci alam bi. xam nga xaw na changé sax boo xoolee café yi mbuusu kii yi ñu naanee kafe yi mooy biodégradable yooyu moom xar yi sax mën nañ ko lekk léegi. Ah foofu mu def nañ ci état def na ci benn jéego bu am solo mais lu tax mbuusul baaxul ci environnement par exemple day mun na def cent ans ci suuf te du décomposer pour war na ne loolu déjà te tamit problème la ci zone yi nga xam ne mooy abattoir ba ci nangaan bi ba ci daaru salaam. pour nga jëmbat fa garab ça problème. parce que tey da ngay gas benn un mètre wala wala benn quatre vingt centimètres nga gis partout ay mbuus nekk fa te racine garab bi buy génn dafa bëgg di percer di dóor boppam di génn dèjà loolu mun na ko boleke ba garab bi am jafe-jafe du génn te te Kaolack tamit jafe-jafe bu ñu gën a am mooy ñun mbuus la ñuy sëkkee mbuus la sëkkee taal pour ñu ne moo mën a sëkk te alors que ñu ngi yàq li nga xam ne moom mooy suuf bi te bàyyiwuñ ci xel. man dama doon gis que bu ñuy nit ñi bu ñu naan jëmbal garab dañuy jël li nga xamante ne mooy kiiwu nag. Mm-hmm.

te il faut nga dindi ko sinon soo ko jëmbatee garab rek mun na mun na rey li nga xam ne moom mooy. garab léegi mais man bu ma jaaxal dafa am lenn loo xam dama ko seetlu heure mhm. dama naan xanaa fii mooy dépôt mbuus mhm. su ma xëyee di bale mbuus yi dañuy bëri tellement que doo mhm. ma naan mbuus yi moom fan lañ jógee. nga la plupart Kaolack dafa xaw a tàng te ñi ci bëri mooy guddi gi lañ jënd ndox. ci boutique yi te buñ ko naanee au lieu ñu jël ko def ko ci ay poubelle ak yooyu noonu mais dañ koy bàyyi mun na mu kii te alors que bu fekkee virus bi sedd bi jóg na rek da koy dégager mu ñëw te loolu moom mooy waral li nga xam ne moom mooy mbuus yi mënuñ ko xeex mu jëm Kaolack mu jóge li nga xam ne Kaolack te loolu tamit da cee am part de responsabilité bu baax a baax kon donc foofu tamit damay wax rek poubelle état ci boppam war na mën a def de telle sorte que doter des poubelles mairie bi aussi doté des poubelles même bu fekkee dañ koy def comme. waa état non mairie sax voilà man kay toogalu leen fi sax. <laughs> comme tamit war na leen a dimbale si ñi nga xamante ne dañuy jël ay jur di ko yar te amuñu fi nga xamante ne fa lañ koy def ndax garab boo boo ji rek. Mhm. gi ñoom ñooy ñëw. waaw surtout loolu loolu tamit am na état am na ci part de responsabilité am na ci part de responsabilité parce que tey garab boo ko jëmbatee. ak lu gabion bi dëgër dëgër dëgër dëgër bu dee tey jur gi ñu ngi leen di bàyyi ñuy tasaaroo ci dëkk bi rek mun nañ ko yàq. Mhm. dangay def effort ba pare te du am suivi kon loolu aussi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. bu fekkee ñoom ñu ngi dégg ñu ñu jeexalee mais mais euh, hmm. bala ñoo jeexal ñun daf ñoo laal sànq. Ah sportif yi euh. Euh, bu ñuy demee sport dañuy jël bouteille def ci hmm. ndox. Hmm. soit bu sedd mbala bu tàng. comme ni mu ko waxee neena boo ci naanee ba pare. xoolanoo ci def léegi. boo ñu aayee loolu ba pare bonne solution nga ñuy andil parce que. non par exemple comme mun mun na ko utiliser sax mais bu mu yàgg par exemple tey bu fekkee ne yow da nga da nga yor sa oto. dem sport def fa benn quinze vingt minutes wala benn trente minutes nga ñëw gis bouteille bi boo ko xoolee mu changé rek jàppal ne am na li nga xam ne ne mooy engrais chimique wàcc na ci biir bu ndox moom bul ko naan tuur ko tey bu ñu mën a utiliser leneen loo xam ne nii tey par exemple tey comme euh, euh, comment dire sax yeneen kii yoo xam ne nii tey dina permettre tey yow ndox mi tey par exemple tey mu nga dem esport bu ñëw

wax ak ñoom aussi ci côté ndox meeg yooyu yëpp loolu yàgg nañ ko def sensibilisation yi te tamit nañ ci bàyyi xel à chaque fois rek comme ni wax nii rek nañ ko faral di di ko faral di ko yu bëri bëgg na wax détaillé mais tamit par respect doo ko mën di génn di ko wax daal ci ci ci kii. voilà c'est ça loolu loolu mooy loolu mooy problème bi. jërëjëf ñu ngi lay gërëm. Mhm. lan nga ñuy digal. Mhm. pour ñu aal alam bi ak. sunu mbokk chauffeur si. Mhm. des fois damay faral di dégg ne sou souvent. Mhm. lu ñuy faral di utiliser mooy saxaar soosu di génn ci oto bi. Mhm. baaxul ci couche d'ozone lan moo waral baaxul. ak mu demee yan impact la mun a foofu. xam nga loolu état war na ci jël reste de mbaa chauffeur yi duñ ma mere parce que mun naa cee wax ñu ne kii mu yàq marché bi. mais lépp loo lépp loo xam ne nii baaxul ci aalam gi loolu état war na ci mën a jël ay responsabilités te couche d'ozone bi bu xasee ba yàqu rek ça pose problème te tey ndox mi noo ko war a mën a amee doo ko amee noonu te lépp li nga xam ne li jafe-jafe aalam la te loolu da cee bokk kon donc di profité ci occasion bi ci wax état nañ ci bàyyi bu baax a baax a baax a baax jéem xool naka la ñu mën a def ba li nga xam ne moom mooy aalam gi ci côté boobu noonu. très bien mm-hmm. ñu ngi lay gërëm yi. Mm-hmm. Euh, dañ daan faral di wax bu euh, jaajëf. Mm-hmm. dara doo ko dégg. yàgg ngay liggéey ci wàllu. wàllum développement mais sa situation politique. Mhm. fi mu toll nii ci kan nga ne yaa ngi ci Benno Bokk Yaakaar. Mhm. wala souvent autorités yi kaw la lu ñuy faral di gis mooy. nekkul ci benn parti. waaw ah. nit dimbalee dafay xaw a mhm. nga ci nekk. yaa ngi opposition wala yaa ngi pouvoir. waaw déjà pour le pour le moment nii man fu ma nekk mooy ci développement lay dox képp ku ñu si fekk si képp ku ñu si fekk si mun ñëw appuyer mu ñëw appuyer ñu mais pour le moment nii nekkuma opposition nekkuma au pouvoir. parce que li daal politique daal. donc pour le moment politique wu ma li may def mooy naka laa mën a def ba li nga xam ne nii am nañ ko ci xam-xam jéem a xool Kaolack nu mu avancé. mais ci ñoo ñoo ngi si loolu moom loolu moom. ñoom dañu loolu tënkuma leen. aussi mais tamit am nañ des am nañ règlement intérieur. ndax ndax UGG nga xam ne ñoo ñooy def wàllu tonne mbalit ak euh, yeneen kuréel yu fi mhm. ci wàllum développement ndax ñooñu mos nañ la kettoyer laaj la sa xam-xam ngir jar wi waaw bien sûr ku ci mel ni waal yi ak euh, Momar mi wax léegi ñoom ñëw nañ fa waxtaan ak man ci côté environnement bi ñu yaatal ci lu bëree bëri aussi ñu waxtaan échanger débat laa ko mën a tuddee échanger ñu jox ma ma jox leen ñu waxtaan aussi pour wane la nit ki loo xam rek fexeel sa dëkk mu jëriñu ci man idée boobu laay doxee te philosophie boobu laa yor buñ ci waxtaanee tamit tënk nañ ko ci ay ponk ba tey oto mbalit bi mu ngi fay jaar mais di wax ne aussi du mu ci gën a jaaree rek buñ yem ci tali bi kese nañ di wàcc ba ci biir. pour di jël mbalit mi timit loolu timit maa ngi leen koy ñaan. bu dee solution yane solution ngay préconiser euh, parce que amon nañ fi benn projet su soqali. setal setal sàmm. Mhm. moy le projet de la municipalité yalla def tay mhm. ñu yegg si li nga xam ne moom mooy bokk moomeel gi. Mhm. Euh, yane solution nga leen jox. pour ñu mën réussir. sen projet soqali. léegi solution yu ma leen jox moom euh, dama koy wax duma ko téye parce que même bu mo ci wu sax ñoom mënañ ci joté kaolak dina ci am jëriñ ñun esprit bobu lañuy doxé nañu fexé mettre en place des cellules environnementales de base dans les quartiers lool moom mëna sétal kaolak mu ñu def buñ ko mënta def quatre def ko trois def ko cellule de nettoyage cellule d'information et de sensibilisation cellule de suivi ba paré timit def évaluation lool ma ngi lañ koy wax pour ñu def ko ba timit ba paré timit di travailler ak association yi nga xam ñi ñu ngi œuvrer protection environnement bi wàcc ay poubelle tamit ci quartier yi ramassage mbalit mi tamit nekk loo xam ne aussi mu lu normal la bu mu am tëbal ak yooyu loolu ma maa leen ko jox comme solution daal. Mhm. ci côté environnement. ci côté environnement gis nga la. Mhm. waaw war na mën a war nañ ko mën a réussir mais tant yi ñu nii moom li ma gis nii moom. tant ay jeune nek ci environnement duñ len appuyer mom bo lu dina ma xaw a jaaxal trop ñom buñ ko bëgge def seul mënul nek c'est impossible. événement yi di ñëw nak nga ko fas yéene defee ak doxalee. waaw événement bi inshallah rabbi ñu ko japp le 15 janvier 2023 ñu ngi leen ci inviter yeen ñep aussi fële ci abattoir. lo ci nara def. liñ ci wara def moy euh, buñu buñu bu ñu xëyee la matina bëgg nañ def set setal bu maga maga mag a ci abattoir and ci association yi and ci tamit ménager yi paré dinañ def ben sensibilisation ben tournée de sensibilisation ba pare ngoon gi def benn waxtaan tuddee ko euh, étude environnement la question environnementale un outil pour un développement pour le développement dinañ ci waxtan ak population bi buñ ci paree tamit dinañ waxtan la technique de reboisement buñ ci paree tamit dinañ def li nga xamné ni mom moy mooy benn benn benn comment dire sax benn réalisation ak tamit gën a ñaa ñaaxaat nit ñi rek ci li nga xamné mom moy ñëriñu environnement mais man tay bu ma la tooñee Samba ne la nattu dal na la. yow mi bëgg environnement loo may tontu xam nga daf ma parce que dama ci critiques hein. parce que li nga ci appuyer. li mais dama ko juste pour jaamu ci parce que doomu un bu destin. ne jeune bu nga John Kennedy ne demande pas ce que le pays peut faire pour vous. mais demande ce que tu peux faire pour ton pays. man man amour am parce que comme orientation bi marketing des jël communication jël mais man dama choisir environnement parce que lool la xam lool la bëgg té timit dama dama ñaanon suma paré warna mëna ñëw fi ma dëkk pour élargir pour mëna bax ci lool non amul ci am mais ken fayuma ci euh, sama association yi ma appuyer ak quartier bi parce que

dinaa bindaat dinaa ko yóbbuwaat buñ ko valider ba tey baax na mais buñ ko valider aussi yaakaar wuñ ci ñoom parce que bu ma yaakaar wuñ ci ñoom suñu événement bi du am. c'est ça buñ ko valider na loolu amul problème incha bi ku ci maa ngi ci woo daal ku ci mel ni le président Antoine Youssou Bengelloune di ci woo Baba Ndiaye. di ci woo aussi Modou Ndiaye Rahma Ndeye Abi Fall ku ci mel ni tamit euh, Pape Mademba bi tey ñoom zone abattoir bi lañ dëkk ak monsieur le gouverneur ak préfet ci boppam ñoom ci zone boo gisee ma leen di woo zone abattoir lañ dëkk di ci Madam aussi madame mariama sarr parce que tey ñoom aussi autorités yi nañ cee mën a dugal seen loxo kaolax avancé kaolax baax di nuyu aussi quartier bu baax a baax baax parce que jàpp nañ ci boobaak léegi bàyyi wuñ ñu ngi encouragé di ñu dooleel di leen sant di leen gërëm aussi di leen vraiment di am mbégte ak contentement ci invitation bi di leen wax jërë ngeen jëf merci beaucoup félicitations sama papa jeune la boo xam euh, ñor ngi yëngoon ci ci environnement ñu ko alam bi mhm. ngir nag environnement bi mën xaleku loolu bokk na ci li nga xam ne moom mooy jëslaayam bokk ci li nga xam ne moom mooy engagement donc ñu ngi lay gërëm gërëmaat beneen yoon di la santati di la wax bon courage. merci beaucoup euh, c'est pas facile. Mm-hmm. mais aussi euh, peut-être dans l'avenir di nga gis li nga xam ne moom nga doon jëmbat ci Kaolack. Mm-hmm. donc merci beaucoup une fois de plus Assane ñu ngi lay gërëm. Euh, di la jox dig daje bu suba jàmm. ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm yow tamit Babacar naka noonu ñi nga xam ne bokk nañ plateau bi di félicité naka noonu di ko encourager parce que liggéey bu métti lay lay lay def moom mi di yëngu ci wàllum environnement euh, ñu ngi am mbégte nag ak contentement ci ñi nga xam ne ñu ngi toogoon actuellement di seetaan euh, bile match show ànd ko ak Babacar ak bépp équipe ñu ngi leen di jox di daje ba suba incha allah. ba suba jàmm ci actu commenté bi à tout moment dañ ciy ànd ak le grand journaliste Maguette lay gërëm tey yaa ñu defal. Euh, gingembre ak xar baax yi nga xam ni que na ko. waaw kay Babacar di leen gërëm yéen tamit bu baax a baax si yéen ñi nga xamante ne yéen laa àndaloon ci plateau bi di gërëm tamit suñu gan gi nga xamante ne tey moom lañu fi dalaloon di ko merci beaucoup et bonne continuation. lii rek non nag damaa jonga ma. Eh, caméra yu bees macha allah moom waaw <laughs> lii mi ngi def effet. et du lourd prépare. et du lourd prépare ndax ndax lii la wax mooy su ma fàtte naa ko damaa a fàtte jëm ma. Babakal di daal di gërëm ñi nga xamante ne ñooy suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne su nekk. ok sama jek, dañoo war a Moussa yaayi xale yi. kenn continuer sa nuyu rek ak kan. Ndeye Diagne Moussa yaayi xale yi awa buuro këram nee jalañ. mère Ndeye ñu lay ñu lay gërëm ñu lay jox di jërëjëf directeur général. ñu ah, sa da naan merci beaucoup jërëjëf jokka ña. merci DG. <laughs> continue. Baflo Diéré am na mbégte ak contentement bokk ak yow plateau bi naan la njëriñu kase la naan góorgóorlu rek. mbir mi gëm ko rek incha allah dina ñëw. amoon nañ contentement bu wér a bokk ak yéen plateau bi di leen dox jig jëriñ ba suba ak jàmm allah même heure même fréquence. wane ma wane ma man maa ñëw wane ma.

lu ñuy yëgle sax. Mhm. ñu naan ko communiqué. Mhm. mais il préfère dañ ko yóbbu. Dakar non non du tout complexe gi moom. non du tout du tout. c'est nous. ñu ngi ñaan bëgg nañ ci ànd ak euh, Kaolack TV ci kii bi ak euh, képp kuy kaw la rawatina yow incha allah rabi bëgg nañ ci ànd ak yéen ci programme bu soobee. jërëjëf jërëjëf ci liggéey gi yéen ñëpp ñëw leen ñu liggéey bu ko defee ñun. Mhm. ndaw ñu fi nekk li création d'emploi. effectivement waay waay su ko yëngi nii maa ko for ci <laughs> <laughs> Assane maa ko fekk dañ ko daxoon journaliste yu dëgër bopp loolu ma ne ko kii maa ko fekk fële mu <laughs> naan sept cent millions nañ mi defal sept milliards ma ne ko ñëwoon liggéey <laughs> mhm. Thierno ngi ne amuloon xëy ñëpp a fi man maa ngi ne amuloon xëy ah. en tout cas commencé naa xëy waaw daal ñu lay sosal yow ñu lay sosal ak kat am na yeneen xale yoo xam ne sax fekkoo leen fi mais ñoom ñëpp. ci kër gi la ñu nekk. en tout cas donc entreprise bu nu mel. bu nekkee ci douane bu kaw la. c'est ça aussi mhm. ci côté war nañu ñëw dugal seen loxo ci entreprise yi. Mhm. secteur privé bi. Mhm. national bi mën a gis seen bopp. effectivement bu ko defee xale yi du ñu mbëkk. bàyyi fa bilan bi génn. atum bi bu jeexee di nga am bilan bi ñaata xale ñoo dee ci géej gi. waay waay ci mer Méditerranée bi. bëri na bëri na trente sept personnes ñu ngi coincé fële. au Maroc. Mhm, mhm. image yi dinaa leen ko jox suba. Mhm. trente sept personnes yoo xam ne ñii seen tànk yi ñu ngi waaj a tànk. ak ay góom di sàkku pour état bi jëli leen. am leen Sénégal. et ça c' est ça Sénégal. vraiment secteur privé baa ngi nii am nañu ay caméra yoo xam ne ay millions la doon jar. seen nañ <laughs> gisee bu mu changé xalaat du gis ci caméra. macha allah jërëjëf Samba ñu ngi lay gërëm gërëm équipe régie bi nekk nga xam ne ñoo nekkoon ci ginnaaw di liggéey bu am solo Baye Mor ak sunu président directeur général moom bàyyiwul dara day ñëw at tout moment di jàpp ci liggéey bi ngir mu gën a mën a yem. gërëm ñi nga xam ne itam beneen équipe suba. li ma leen di wax ne fii création d'emploi la ñeneen suba ngeen di gis yeneen xar kanam. yoo xam ne que danañu yow di bay ci li nga xam télévision bu Kaolack TV donc nañ ko gën a dooleel sponsor yi nañ ñu wikk waaye nous sommes dans le Saloum la suñu titre la mhm. donc nañ ñëpp ñëw dugal seen loxo ñu ngi gërëm dorénavant ñi nga xam ne ñooy waa SDPP gis nañ leen fi mhm. gis tam fi tam résidence Mamour gis fi Omay Evans gis fi euh, Saloum portable ak ki nga xam ne moom mooy Omar Gueye gis fi tam ki nga xam ne ni que moom mooy waa Brioche Kër Ndak mhm. bu euh, fi nga xam ne mooy rond-point Medina Baye ñooñu ñëpp nañ gën a ñëw bu gënee ñëw gën a baax boo ko defee ñi fi liggéey gis seen bopp seen waa kër gis seen bopp directeur général gis si boppam mm-hmm. euh, autorité municipale daf na si gis seen bopp parce que ay taxes yoo xam ne que dañ ko jël pàcc ko ci nga xam mooy entreprise bi mm-hmm. donc ñu leen di gërëm euh, gërëm Samba Ba mooy président association Kaay Liggéey Kaolack point focal réseau écosystème bu diwaan bu Kaolack mm-hmm. dig daje suba ñu waxtaanee réew mi waxtaanee développement waxtaanee Kaolack jaa ngeen jëfee bon jour des programmes euh, lii nag ki ma ko may mooy benn xale bu jigéen boo xam ni que numéro de téléphone am est-ce que war naa ko am euh, pour jàllale ko numéro bi ñaata la ci sax. <laughs> attends 78 214 27 59. voilà 78 214. 27 59 27 59 mooy jaay pull yi nga xam ne. actuellement mu ngi ci Kaolack 78 la 214 27 59. moom mooy jaay pull yu baax yi mën ngeen dem rapport ci moom rapproché wu ci moom bu ko defee itam gën ko yaatal kenn ko ne mun ci jot ndaxte ñu ngi ci période sedd couvrez-vous merci beaucoup à tout le monde suba jàmm Assane <laughs> <laughs> na ko yaatal na ko yaatal na ko yaatal